ku téléspectateur u Leral TV tey comme ni ngeen ko gisee le 12 euh, mai 2023 ñu ngi fii ci place de la nation ex place de l'obélisque ngir assister cette manifestation du F24 donc ñu woote ko ngir euh, joytu ñaari point yu am solo bokk na ci euh, benn bi moom mooy non à la troisième candidature du chef de l'État Macky Sall wante itam bi ñu topp bokk na ci rek ñu libéré ñi nga xamante ne bi rek ñoo di ay détenus politiques te gis nañ sax ni askan wi aussi dëkk boo xool rek daanaka jóge nañu fa ngir ñëw fekkee li nga xamante ne bi moom moo di manifestation

depuis 2019 ba léegi gis nañu élection bi fi jaar Macky Sall mooy xool ki ci bokk ki ci dul bokk loolu recul démocratie la ci àddina bi te c'est pas normal du tout àddina dafa dépassé foofu projet bi Ousmane Sonko porté ñun jeunesse bi la porteel depuis 1960 ba léegi boo xoolee même fi nekk ñuy jàpp ay otage politique di leen kereel gis nañ Mamadou Diop depuis Amadou Bolende Diop gis fi ku ñu di la a galgal Ousmane Sonko dafa am lu bees sàq lu mu indi Sénégal Ousmane sonk détourné wul alal 15 ans de service la def domaine mosul lekk alalu Sénégal jóg di laaj Sénégal pour gouverner ko Macky Sall ak ay nitam na ko du ci dal loolu la Sénégalais mënul nangu li may lancé nii dama bëgg ngeen wane ko fépp ci àddina bi léegi ànd ak Ousmane sonk ci politique Sénégal dafay mel ni deli ñuy wax Antoine Diome ministre de l'intérieur na ko doomu aadama yii muy jàpp di dugal ci kaso bi moom mooy premier responsabilité na xam ne nguur dafay jeex moog Ousmane Sonko ñoo ñoo moog Ousmane Sonko ñoo bokk seen xombal ga. voilà tur bi ak sant bi. Ah, Touba Gueye donc nga ñëw ci manifestation F24 loo ñu mën a wax tey. ah waaw dañuy ñëw si manifestation F24 f bi ndax parce que autorisé na ko la wax moo tax ñun yëpp ñu génn ñëw pour wane suñu sujet si jafe-jafe askan wi ndax manifestation yi bëri na réew mi prison ñu tëj bëri na violence bëri na yëpp dafa ki moo tax ñu bëgg ñu fi taxaw pour participer. taxaw wax suñu ñaxtu wax suñu waaw. li gën a li ngeen di ñaxtu bokk na ci euh, bëggoo leen troisième mandat Macky Sall wante itam nañu libérer les détenus politiques. waaw bëgg nañu li mu mooy réew mi comme euh, comme sar réew conseil constitutionnel maam sar réew wax consommé nee na troisième mandat nangu ko article 27. kon loolu la bëgg Macky Sall fàttali ko lool waxi démb nag fàttali ko rek war mën kaa teg si tey ñi war a bokk war naa bokk ñun ay patron lan waaye ñun bu kenn bokk ñun ay lan Ousmane waaye damay bëgg Karim Wade bokk damay bëgg Khalifa Sall bokk Bougane Gueye Dany Pape Djibril ku bëgg a bokk mën na bokk loolu mooy démocratie ñun tëj koso yi dara nañ leen bàyyi dañu wane seen seen mbégte ànd ak Ousmane Sonko réunit defuñ dara waaw kon war nañ ma liberté bay leen ñu dem seen kër wax dëgg yàlla loolu la waaw ñun dañoo ñëwoon ci manifestation bi nag di wane ñun suñu naqar quoi comme Macky Sall nu mu jàppee réew mi du yoon parce que ab réew moom boo ko yoree da koy teg ci yoon ñun nag loolu lañ jàpp suñu yitte nag nekk na ci leneen loo xam ne ñun étudiants yi am na loo xam ne si ñu ngi koy kaas ñun nag waa UVS depuis ba ñu amee suñu bac ba léegi ba léegi commencé guñu jàng ñi ngi si ay distribution machine jox nañ xaaj bi machine beneen xaaj bi jotaguñu machine léegi nag ñun dañoo nekk di kaas bu ñu mënee jàppale suñu machine ñu jot si ndax ñu commencé jàng ndax am bag daaw ba ren nii mënoo koo commencé ak jàng loolu metti na ñun nag ñu ngi woo bépp étudiant UVS ñu leen woo ñun waa P10 ñun ñëpp même waa P9 ak P8 ku ñu mën a jàppale rek si xeer nga ñëw lundi incha allah dañu amal benn manifestation waaau ñun waa P10 ENO de Dakar incha allah rabbi leen jaajëf faut dire la vérité les souffrances tout le temps il est souffrance kenn a dit la voleur il faut dire les Sonko li ci Sonko force lay bokk ñun nag ay wax neexu ñan wax lañ dañuy wax ta du wax dañuy wax ta daadu ka wax is monta is my is god is oot min ay Afrique qui est pauvre il est sonn il est fatigué pourquoi le Macky Sall il est dëgër bopp il est tuuti xeex il est jot suñu moomeel Sénégal léegi ndaw ñay bañ bu njëkk mag ñi ñoo daan bañ waaye léegi ndaw ñay bañ. non je pense lii nii mot d'ordre bi mooy taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am tey ci Sénégal pour le futur de notre pays. parce que tey jii bu ñu ñëwee taxaw fii dañu nekk di bañ li nga xam ne moo nekk di xew ci réew mi te warul am na ko en aucun cas les libertés sont bâillonnées. La démocratie est en berne. Les jeunes souffrent. Et notre devoir aujourd'hui, en tant que citoyenne, mooy taxaw pour les générations futures taxaw pour nos l'avenir de nos enfants taxaw également pour la prospérité parce que dafa am loo xam ne dafa fi jotoon xew ak Mamadou Dia dafa am lu fi jotoon xew ak Mamadou Dia ay nit ay nit seetaan ko ba mu dem te ñun kenn dootuñu nax ñaari yoon président Ousmane Sonko day bokk day bokk incha allah su amee koo xam ne du bokk ci élection yi ñu jëm mooy président Macky Sall ndax wax na ko avant 2016 gis nga référendum bi bi mu amee la régler problème bi moo tax daf ñuy xajal ndax dëkk bi ci jàmm la xaj te dañoo yore jàmm olof nag dafa am lu mu wax borom baatu neen du xeex ak borom caq ñun ñoo yor caq ndax ñun ñoo am président Ousmane Sonko ku am président Ousmane Sonko munoo ragal munoo tiit munoo jaaxle taxawaay rek mën a am ndax sa dëkk. waa citoyenneté bi nga xam ne mu moom la moom ci suñu dënn yi ndax gëm-gëm bi nga xam ne yéen a ko junul moo tax dinañ taxaw fii pour les prisonniers yi nga xamante ne nii dañu leen ah, dañu leen téye illégalement arbitrairement ñu ngi leen téye ci kaso yi ma wax ñàkk jàmm naan amul ay détenu politique soo jàppee Bassirou Diomaye Faye jàpp Khalilou Faye Keïta nga ne amul détenu politique nga jàpp Aboubacar Mboup fële ci suñu coordonnateur départemental bu Tivaouane ndax lan liggéey bu rafet bi mu doon def ci nemmeeku tour bi nga ne détenu politique amul lan nga bëgg nga jàpp responsable des jeunes au niveau du département de Pikine Babacar Ndiaye nga ne nga ne nga ne amul da war a toog nga xoolaat sa bopp. donte ñu ngi njort ay yëngu-yëngal fii ci place de la nation takk der yi ñëw nañu ngir encadrer yi les manifestants.